حمدي وشكري لمن كل به سارا له ردا دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارا له ردا دون صوت حند سرسارا aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim wa bi kalaami fi suduur alqawmi almuminina mugneen an law mi inna allazina ila sarsaarakat xasadu siyaarati faaraxu daareni aw saara mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki téléspectateur u As-Samadiyya TV ak Al-Khadimiyya TV ñu ngi leen nuyu baax di leen ziara am mbégte mu baax lool noo ngi fii nag ci Nouakchott ci kër Seexul Xadim fas yéene amal waxtaan wu am solo séq koog sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada yàlla ko suñu borom yàggal lool te wéral ko mbokk yi ma fàttali ni ren jii mooy vingtième édition ci ziar Sarsara ren jii nag mbokk yi ñu tudde ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñu ñëw fii ci kër gi nag ànd ak waa fédération Cheikhul Khadim ci liggéey bu tedd bu am solo bii Serigne Abdoul Aziz jóob jiite li nga xamante ne mooy commu mooy communication bi waaye lépp lu jëm ci wàllu jëflante ci ñaari réew yi muy lu am solo ak jëwriñ sëñ ma Diop jóob waaye ñu fas yéene ànd ak sëriñ bi nag am ak moom benn jataay bu am solo ci li nga xamante ni mooy euh, Sarsara kon dañuy jox sëriñ bi rek mu nuyoo ba noppi ñu door a dugg ak moom nag ci waxtaanu am solo wi nga xamante ni moom lañu fas yéene seq ak moom te mooy waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy sarsaara waaye ak li nga xam ni mooy màggal gi incha allahu taala. waaw aleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf ñu ngi bu baax a mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp chaîne yi ci àdduna bi ak fu fu ku wax ji yëgg ci yow rek. ñuy jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu am solo boobu ñu bëgg a séq rek waxtaan wu am solo euh, fii nga xam ne mooy ardu saalihin suñ boroom dogal yaa fi teewal sëriñ bi ci ay at yu limu macha allah yàlla na ko suñu borom gën a yàggal ñu bëgg ne nga fàttali nu dëkk bu tedd bi ak cosaanu dëkk bi ak sëriñ bi lan moo ko fi indi woon ni nga xamante ne dem nañ man nag bay topp ay trois saatam ba nga xam ni yàlla dogal na màggal gi ñëw kon ñu bàyyi la rek nga fàttali nu jëmmi gànnaar ci boppam ak sëriñ bi ñëw gi fi ñëwoon. waaw waaw rek euh, sëriñ bi ñëw gëm fi ñëw moom euh, dafa doon lu rëy ci taarix ndax. Euh, boo xoolee ne bi bi jógee ci géej gi dafa juróom-ñaari at ci la ñëw bi ci euh, boo xoolee jay session toll 1313 ci gàddaayu rasulullah sallallahu alayhi gi di tombeek 1895 si lañ ko jëlee ci euh, réew mi euh, ci la demee ci tukkeem bu màgg boobu nga xam ne wax na ne li ngeen ut li mboolem aju ci man li ñu ut ci man bu du loon tukki boobu duñ ko am kon nag ñun tukki boobu mooy sunu lépp waaw mooy màggalu Tuubaa bi ñëpp xam nañ ko bis mi nga xam ne euh, ci la ko demoon bis boobu it ci la ko sunu borom fay fayu fu mu dellu seetee doole ko ci lu doon li mu ko mayoon bi mu dellu nag ci ci at ci at ma 1902 ci njeextalu at mi laata at may jeex indi nañ ko fii lépp ay jaxase yu noonu ak ay ay waaye waaye tamit ñi ñi nga xam ne noonu lañ yeewoo ci jàngat ay mbiram rek lu ci nekk day am sababu zahir am sababu baatin sababu zahir yi euh, jaxase yi daa am rek ak tubaab nasaraan bi bëggoon nëbb ay mbiram rek bëggoon ñu fàtte jàngaleem bëggoon ndax booba dam doon jéem ginnaaw sottiwut bi mu ñëwee gis nañu riir mi indiwaat ci réew mi ak ñoom seeni politique ngir bëggu euh, ki ak ak ak ci aju yëpp yu bëree bëri yoo xam ne wax nañ ne bokkoon na ci liñ visé lu am la ñoom seet nañ ñu ko euh, jéem a euh, waaw sababu baatin bi nag moom ay ay ay ay accord la yu dox digganteem ak rasulullah sallallahu alayhi wa ndax wax nañ ne ci yoonu gànnaar bi bi mu dem rasulullah sallallahu alayhi wa dafa ñëw ne ko sa liggéey bi de matal nga ko waaye da nga koo matal njëkk muy mat juróom-ñetti at digg maanaam juróom juróom-ñetti lu waroon doon mu ne ko waaw mu ne ko juróom-ñetti at des na juróomi weer mu ne ko waaw mu ne rafet rafetug liggéey moo tax ak sa moo tax nga matal ko dig jotagul mm. ko sunu borom daa bëgg nga mottali juróom juróomi weer yi mu ne ko waaw mu ne ko te gànnaar nga koy mottalee mu ne ko waaw mu ne ko tugg at weer wu nekk def nañ ko at mu ne ko waaw mu ne ko bismillah loolu sababu euh, nga xam ne amit yu bëri yuñ ci mën a jàngatee ndax li euh, dafa mel ne euh, li li jëmmi tukki bi moom Euh, maanaam juróom-ñetti at yooyu nga xam ne juróomi juróomi juróomi at yi la defaat fii mu toll juróom weer yi yow matali dafa bëri ay ay ay ay sir ay secret yu ci nekkaat yuñ mën a jàngat bu baax a baax ci mbindum sëriñ bi ak ci waaw fi ñu koy mën a euh, ñi nga xam ne ñoo ñoo yi nga xam ne ci ñoom lañuy jàngatee euh, xabaar yu wér yi nga xam ne mënees na si sukkandiku euh, ci mbiru ku baax gi defar njabootam euh, ba léegi moo tax buntub gëstu la boobu rek bu yemut fenn waaye ci biir juróomi at yi am na yaari yaari mbir yu may fi seetluwaat mooy benn bi euh, am na ñetti at yu waroon a mottali ñetti at ginnaaw juróom-ñaar yi muy fukki at foofaat dafa am leneen lu ci xewaat ndax euh, di gis mu naan euh, doon naa liggéeyal yonent bi fukki at yoo xam ne ama daksa Chine la yem fukki at yi euh, njëkk ama daksa Chine la ndax fukki at mooy ama shahid naa bi karamin mashahida li melaw lan la bi karamihi liya man ko bëree bëree bëri ama jag si sin ama ama shay ama shay naa bi karamin ak hmm, sachin la fi ñëw bak sachin jag sachin kon waxool bak sachin googu mooy fii fukki at yi matee fukki atu liggéey bi dafa mel nag foofa fa la li ñuy wax tukki boobu moom jeexee waaw tukki bi tukki bi ak ak dafa mel ni am na am na ay jaayante yu yu doxoon diggante ak boroomam yoo xam ne euh, foofu la yem bi muy foofu nag moo tax amasé naa bi kër doon tournante bu mag ci yoon wi bokk na ci jagley sarsaare yi ndax la foofu la ko fekk amasé naa bi kër ci la ci la jotee wérduma ci lañ ko indilee wérduma xuus rasulullah sallallahu alayhi jox ko ko yàq satan la mën naa man ci li liy xew lépp xewee. xam sëñ moom boo seetloo bu setantalee di nga xam ne naan sëñ bi sax fii la ko rasul lay fekk wax la joo xam ne maanaam boo xamee ni ni ni mbiram daan kiwee wax la joo xam ne day mel ne am na loolu dafa mel ne ki koy wax sax am na lu muy bàyyi ndax ndax moom fu mu mës a nekk rasul lay te te it maanaam fu mu mës fu mu mën a nekk da koy fekk daan li sëñ bi laa doon wax naan euh, ginnaaw rasulullah sallallahu alayhi ñuy waxal ma naan ma laaj ko yàlla ci moom lees ko fi gisee ma laaj ko yonante bi euh, loolu mooy tax euh, yooyu boo xoolee loolu loolu benn benn as as aspect la ci am na it waaw waaw waaw déedéet du benn bërëb rek benn bërëb loolu sax maa ngi maa ngi maa ngi doon sàkku ci waa euh, diin waa saatida yi ne leen loolu war naa am baxs boo xam ne war nañ ko ci euh, dox ci at yi ñu jëm ndax euh, ñëpp xam nañ ne bi muy door a egg si buti limite lay njëkkee Cheikh Sidiya moo moo moo da am amoon na rapport bu mag ak tukki boobu ci sàkku ci tubaab bi ak ñaanee intervention ngir ñu bañ ko yóbbu fu gën a sori indi woon ko fii loolu ci sababu zahiri lu bokkoon euh, buti limit euh, ba mu fa jógee am na ay dëkk yu mu jaar euh, sarsaara nag da cee gën a fés ndax xam naa ne du ñàkk ay éléments yu koy waral waaye donte wàllu durée bi sax Euh, gëstu yu ko taayin ba mu leer ne lii la moom lay wax ne wares na ci jóg fi mu toll nii ak yeneen barab yëpp ak itinéraire yi waxtu wu ne fu mu jaar ak kañ la ak nu demee waaye Sarsara yi ko yi ko gën a fësal ci biir histoire bi dafa bëri ndax bokk na ci xasida gi mu ci def bokk na ci lim ci wax bokk na ci it euh, mu arrixiin yi nga xam ne ñoo ci def téere acteurs yi gën a mag ci liwee ci limee Nadim te wax lu bëri ci xaybatul barriya la koy tuddee boo xoolee pratiquement li muy wax ci xaybatul bari bi li ci ëpp sarsaara la xew woon lay wax kon euh, di ko fesal dafa bëri fa la jotee ñaari wérdu maxuus wérdu maxuus xafiif bi ñuy wax xafiif ak bi ñuy wax akmal loolu lépp Irwaawu Nadim nett na fa la ko ko xayru xalqillaahi joxe xafiif bi mi ngi ko jox nee na ci laylul qadri fekk ko ci intikaaf ci jàkka ji waaye nag xaamis sawaal la ko njëkk joxe loolu ñu bëri nañ koy jaawalee du xaamis sawaal la ko jot mooy juróomi fanu kori waaye ci la ko njëkk a jox ñu ñëw Mouhamad Ibnul Hassan euh, ñooñu ci daymaan yi topp Sëñ Tuubaa nga xam ne ñu doon waxtaanee sànq ñoom dañ cee bokk shérifu daymaan yi ci Rasulullaay la ñu doon waaye ñoom bokk nañ ci njëkk a suñu Sëñ taqoog moom ko jox doon mëritu la ko am bàyyi ma ko fi indi woon xamis bi mi ngi ko jot gàmm guddi gàmm ba tey ci sarsara kon nga xam ne euh, waaw yooyu yëpp dafa bokk ci éléments yi koy siiwal li tax ma ne war na war nañu see def ay gëstu bu baax a baax ndax jaaruk xumaag gi mi ngi ci jaarug jarrar yi d'ailleurs sax at yi sax ñu ngi tàmbali boole woon nañ dëpp ñaari at ci ziar bi buñ jógee Sarsara di ñenn ñi ko mën dañuy danañ def benn tuur jaar jaar jarrar yi tour boobu dañoo bëgg di ko di ko gën di yokku ci at at ci at ba mu daj mboolem barab yi mu jaar nga xam ne ku jógee fee nga am possibilité mën a jaar xomaag mën a jaar jarrar yi mën na jaar euh, euh, euh, mboolem Boutilim it fi mu jaaroon foo xam ne am nañ yéene ziar fa xam naa yooyu ñu ngi ci. waaw histoire du ziaru Sarsara bi lu jot la yàlla def ko ndax boo xoolee ndigal li Cheikh Saliou Mbacké moo ko joxe. ndax euh, waxtu woowu mi ngi tolloog 2005. 2005 xam ngeen ne ñun 2001 la ñu Cheikh Mamadou Mourtala jox ndigalul ñu nekk fii te euh, at moomu lu fi mujj euh, daanaka diggante booba bi fii sëñ bi jógee nag ci 2004 xëy na. sax ci lañ gën a euh, stable sañ ci toog ci barab bi loolu nag foofu lañ tàmbalee di xool mbirum euh, lépp rek ni koy doxalee ndax Cheikh Saliou kat mu tedd mi yàlla na yàlla na suñu borom dolli seeni leer daf na nu daf na nu ne woon daf na waxoon ne ma boo ñëwee di ko tàggu ci lu ñu siñ bi digal ma ne woon ndigal làngoogu ma ngi koy yeesal ci yow bu baax kon loolu lépp doon loo xam ne Euh, euh, daa doon duñu war a jéem a jëfe suñ kem kàttan xam nañ yaafus nañ ci lool waaye nag seen ndimbal rek ñoom waaw ndax euh, waaw seen ndimbal daal xam nañ ne duñu bàyyi ñu wadd waaye <laughs> waaw ndax ba loolu amee bi bi bi nga xamee ne ñëw nañ ci 2004 bu 2004 cinq ndax boobu fekk nañ ndongo yi fii taalibe yi bëri pëseef lañ waaye bennoo gi desoon na ndax daal def ku ne rek booy def dara ñi ca des dañ lay seetaan wala duñ kii woon ñuy wax fédération amu fi amu ci woon euh, doonte toog nañ benn jamono boo xam ne ñi ngi ñi ngi jàngat liggéey bi luñ ci luñ ci war a mën a apporter euh, ci jamono boobu temme lañ ñu tàggu Euh, ñi fi nekkoon am xalaatu bëggoon nañ di màggal Sarsara boobu bi nekk ci kër gi euh, ñu leen rafetlu nañ ko ñu def délégation dem ci Serigne Saliou mu joxe ci ndigal bi ñu ñëwee tamit mën nañ ne édition bu njëkk moom buntu kër gi rek la fii lañ bâche def ko yéene ko édition bi ci topp 2005 defe naa boobu euh, Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Mourtala Eh, xam ne yëgal nañ ko ko eh, ñëpp xër ci mu ñëw ngir ngir ngir ngir ngir ñu cee dooleel at moomu moo teew 2005 eh, 2006 suñu si wàllu sot teew na ay at yu bëri ci ginnaaw ndax suñu Alaaji Baara ci jamono booba ñëw nañu sax bis di ko tàggu ne ko ne ko sëñ bi xam naa ngir mu ñëw présider si suñ cérémonie officielle bi ñuy def fii ci màggal gi mu ne ko mu ne ko waaw yebal nañ na fa waaye ba faaw maanaam di picc président gi <laughs> loolu loolu moo tax am nañ ci taw féexe am koy ati ati at yoo xam ne si siñ siñ fàllu euh, gunge ñu ci ba euh, bañ si ci fii yëpp siñ fàllu daa dox lu bari ci benn mbooloo yi fii ndax bi léegi ci ci 2005 bu googu nag ci lañ ci la ci lañ taxawal fédération ci lañ taxawal fédération ci dëkk bi ngir euh, daayira yëpp fédéré ndax ñu mën a defandoo nga xam ne lu ñuy def rek murid yëpp koy defandoo lu ñuy bàyyi ñoo koy defandoo suñu borom def ci tawféex yi mu taxaw ci at mooma ba fii ne fédération boobaay dox xëy nañ njiit ji fii changé wala yooyu waaye benn structure bi la daayira yi nag duñ deñ di adhéré wu ndax daayira bu bees bu ne rek boo xamee ne li ñépp bokk fi fi fi fii laa ciy bokkee damay daal di ñëw ñooña fii ne loo gis ñoo koy def ñoo organiser lii lépp ñu ñu lépp loo xam ne liggéey bi la fii rek alaaji waar noo naan taalibe yoo ko fi def waaw donc loo loolu la loolu mooy histoire euh, Sarsara yi waaw loolu xam nga réew yi ñoom euh, xam nañ bu baax a baax mbirum sëriñ bi xam nañ it ni mu toll ci suñu réew yi waaw xam nañ ne amuñ lu ko ëpp waaw ci euh, li muy li muy jur waaw te itamit euh, amul xew-xew yu ëpp xew-xew yi ci li muy yëngal ci ay nit di leen jëlee bërëb leen jëmale fi barab bu naa ne Sarsara moom biñ koy tàmbali at mu njëkk mi xanaa benn kat kat dafay dem wala yooyu wala ñaar at mu njëkk mi sax dara jógewu fi ci buntu kër gi la yam at ma topp ci la xam naa benn kat kat wala ñaar dem foofu loolu it euh, li lay wan ne lu jot la lu sëriñ bi namal boppam ndax bañ tollee foofu dëkk ya jege Sarsara maa ngi ciy tudd kilifa Tijaan gu baax di taalib Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Hadj Misri nitu yàlla bu baax wax moo borom Maata na te dend ak Sarsara nga xam ne war naa am douze kilomètres ci diggante bi xër gum xëroon ci màggal gi donte boobu màggal amagut ndax ñaari kaat kaat wala yooyu waaye bu bu sànni jot day tànt foofa mbooleem la fu di ñiy ñëw waajal leen luñ jëfandikoo nga xam ne booba ñay dem dañuy dem rek buñ demee boo ziyaaree ba pare da fekk tant fekk fa lu ñu jëfandikoo kon bi fédération bi taxawee nag 2005 2006 ci lañ tàmbali di changé ndànk-ndànk ndax consignes yi njëkk mooy bi ñu demee ñaari at ñett délégation yi tàmbalee yokk ci lañ leen wax na leen dañuy fexe nag di fa bernde waaw di fa di fa di fa yóbbi gileem di fa yóbbi nag defe bi ñu ko waxee sa daayira bi ku njëkk def mooy wasilatu rubo <laughs> waaw bu par bu Luxar sëñ Amar yi njëkk yóbbu nag foofu noonu lay màggee ndànk-ndànk euh, ñu dem a dem ba fii mu toll nii def naa ne euh, aada ju bari sax ñu bari ñu ko jaawal ndax aada la bu ñu jógee foofu ñu dem sant Agmistine ndax fi ñu jaar waaye léegi mbooloo mi toll na foo xam ne ñëpp dañoo foog ne sax euh, loolu daa bokk ci màggal gi ba nga xam ne dinañ sax xaw a teg coono waa dëkk booba ndax ndax jékki-jékki rek ay junni nit wàcc ci sa dëkk nga war leen a ganale loolu nañ nañ ko nañ ko xamee noonu xam ne déléga tête de délégation yi mën nañu dem ndokkeel ko waaye du fu ñu war a jël mbooloo mépp rek yóbbu ndax li lim ci lim koy li ndax ba mu koy def ak boobu ak léegi bokkut contexte bi bokkut te day yokk euh, nu yooyu yëpp loolu rek ko waral euh, loolu nag amul benn jamono boo xam ne euh, ñaari état yi mas nañ ci oyofal dara wala ñu seetaan ko naka jekk réew Mauritanie dina def euh, transmission yi mu war a def yëpp ci ay information yi mu war a jox ay euh, euh, waa état bi dañu yombal lépp it sam wax dëgg yàlla hmm, defe naa ni ñoom sax dañ ci dañ ci dañ ci dañ cee sawar ca tàmbali ba ndax nañ def ay jamono sax ñu naan gani sarsaar yi ndax lu laa def suñu fay jaaree rek day taw màggal màggal gi <laughs> jamono yooyu dañuy soxla taw ñoom ci barab yooyu ndax seen jur gi waaye def nañ ay at yoo xam ne yi muy dajeek nawet fu màggal gi jotee bis yi ñuy romb foofu rek day taw ñu naan ñu naan gani sarsaar yi ñëw na léegi mu taw daan nañ ko daan nañ ko wax foofa gani sarsaar waaw di sant rek sant euh, sunu boroom yi nga xam ne mooy def di dindi te lépp moom ma di sant xaritam bi soppeem bi liggéeykatam bi gën a mag ci liggéeykat yi xaritam yonentam bi di soppeem bi di liggéeykatam bi gën a mag ci liggéeykatam bi waaw moom loolu rek te li ma doon wax démb rek yenn saay sax da wax loo xam ne euh, yëg-yëg rek la mais da dama xool lépp ne lii lépp pëndub pëndub tukkeem bu tedd ba rek moo ko waral waaye pënd boobu nag nañ sant yàlla ba ba ba ba mu ñu façonné te xam ne euh, pënd boobu du tàqalikoo ñun ba jënnatul firdoos yi sëñ Tuubaa yërmande jaam ñi rekk la baax waaw farilaala hamdi wa sukri liman kulli bihi saara لغوردا دون صوت حند سرسارا حمدي وسكري لمن كل به سارا لغوردا دون صوت حند سرسارا